xatul diggante coalition Yewwi Askan Wi ak taxaw Sénégal ci communiqué bi mu fësal Yewwi daan na xam ne que dàkk na mouvement xalifa Sall bi waaye nag buñ sukkandikoo ci kii di Cheikhouna Bèye bokk ci Pastef taxaw moo njëkk seppi boppam ci bile coalition ginnaaw nag bu mu salfaañee ay charte yi nga xamante ne tënkoon nañ ko seen biir. mais Khalifa Sall je lui laisse la responsabilité de ses actes. parce que trahison pas trahison man du ma dem ba naan ko dafa trahir wala trahir seulement li nga xamante ni si moom la def. wala acte yi posé rek la teg sur la table affaire u mairie Dakar bi bu ñu nee dañuy renouveler la ñuy remettre de bureau à l'ordre bu fekkee poste bi dañ doon dem ci ci une co-gestion de la municipalité ñu xam ni poste bi ça revenait à Pastef même bu fi dindee góor dañ fa defaat jigéenu Pastef bu ñu am na ci député bu ñuy présenté bu ñu présenté la bannière de de sous la bannière de taxaw la ñuy présenté kooku kan moo romp pacte bi. taxaw nag daaj na tontu si li ni mel buñ sukkandikoo si Malick Kébé lii nag ñàkkub déggoo kese la te nag xamle na ni que Yewwi Askan Wi amul benn maxaama génnee Khalifa Sall ak ay àndandoowam si biir coalition bi. ñu tuddee communiqué noonu bataaxal boobu waa. Euh, xam ne ñoo fa nekk ne waa yeewu askan bi lañu parce que dañu jàpp ne ñooñu du ñu waa yeewu askan bi. li tax war dafa toog naan yaa ngi bind communiqué naan ay communiqué yeewu askan bi rek nangam nangam donc ñun ñi nga xam ne ñoo taxawal yeewu askan bi mooy le président Khalifa Ababacar Sall moom moo toog génn prison ñëw toog xool ne xaar moo opposition bi yëpp sol dàllam dem fu ci nekk ku nekk mu woo la ba dajale leen man dama jàpp ni li ñuy wax choc des ambitions ah, ñaari ponkal yu buuxante ñaari ponkal yu buuxante nag du ci ñàkk du ci ñàkk ñu xaw a jàppante Malick Kébé daal di si yokk naan yeewi ak taxaw dinañ toog waxtaan ngir rek saafara seeni jafe-jafe waaye nag kii di Cheikhouna Beye mu bokk ci Pastef moom jàpp na ni que jamono ji lu gën a soxal rek mooy génne kii di Ousmane Sonko fu mu nekk